al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam asalaamaaleykum sëriñ xabbaan soxna si wax ne dafa julli ba noppi bim noppee mu seetlu ne ndeke bi julli mbaaxam génn génnoon ndax julli googu day bokk kii fay da koy fay wala déet du ko mooy bu fekkee bi julli fekk na fekk na moo gis mbaax euh, xanaa bu fekkee waxtu yu jotoon bu dee waxtu yu jotoon na maanaam waxtu yu duggoon na mu toog mu toog ci biir waxtu yu te julliwut kon moom da koy fay waaye bu doona ci njëlbeelu waxtu yi rek la doon la doon julli yëg na mi julli mbaaxam génn na mooy daal mbaax tënk bi daal mooy bu fekkee Euh, maax maax maax mi dafa génn lu jiitu waxtu yu dugg kon du ko fay ndax julli googu du ko war kon lu war ci moom ba koy fay bu dee ginnaaw bu waxtu yu duggee nag ci loo xam ne juli xajon na fi juli xajoon na fi bu dee lu mel noonu la moom da koy fay ndax kon julli gi waroon na ko ok asalaamaaleykum sëriñ xabbaan kii laaj ndax li borom wote di faral di def rawatina ñi ami taxi di ko dénk ay nit nga xam dañ naan leen bis nekk danga ma jox nangam danga ma danga versé nangam ñaari junni wala junni wala luñ juboo rek ndax loolu dagan na li ci cosaan de mooy ñàkk dagan gi moo ci cosaan ndax lënt da ce am ndax ki nga naan nag ma jox junni wala ñaari junni xamoo ba xam dana ko am wala ko am euh, kon xeetu lënt am na ci waaye nag am nay jëflante yoo xam ne danañ ko maye bu fekkee daanaka dañoo dem ba munta ñàkk ndax it ñi moom oto yi itam bu fekkee dañuy wax ki leen di dawala rek loo am andil ñoom dañ ci ragal kooku dëngeleen dëngeleen mooy am li am mo wàññi ci dara waaye bu fekkee daal xool nañ ko ba muy lu yanu maanaa loo xam ne moom jàpp nañ ne ba ko munta am bis bu ne it li ëpp ci bis yi moom dana ko am te léeg-léeg moo am lu ko ëpp kon fu mu amee lu ko yées ba mu amee lu ko ëpp da koy da koy wecc lu mel noonu moom mën naa tax ñu maye ko ngir sàmm sàmm sàmm borom sàmmal borom oto yi itam seen seen njariñ ci loo xam ne du lor ñiy dawal bu xool nañ ko ba dëppoo ci to xam ne li ëpp moom ci bis yi dana am lu tol noona bu ko dul amit la la ci yées du bari te léeg-léeg moom lu ko ëpp bu demee noona moom dara du ci war a nekk mooy cosaan la buñ ko mayee waaye nag buñ loon cosaan la rek kii o oto man na cee loroo moom itam ndax am na ñoo xam ne ku ne leen loo am andil rek mën nañ mën nañuy andi lu néew a néew a néew a néew fekk ña am lu ko ëpp bu dee lu mel ni day mel ne kon day ne ci diggante bi daal euh, loolu mënees naa rafet njort ci ne kon du ci nekk bu fekkee xool nañ ko ba muy lu yoonu maanaa loo xam ne nag léeg-léeg mu mat ko léeg lek mu ëpp ko léeg-léeg mu yées ko bu ko defee la la muy mooy fatt euh, li muy yéese baax na jërëjëf asalaamaaleykum sëriñ xabaan laaj bi mooy ndax góor ak jigéen sañ nañoo bëggante ci suuf te seeni wejur yéguñ ko jëmi bëggante moom bëggante moom doonut lu ñuy lu ñuy lu ñuy du jëf daal du jëf waaye mbirum xol la bëgg mbirum xol la li am nag mooy bëggante bu amee diggante góor ak jigéen day baax ñu yëgal ko seeni kilifa ndax jigéen moom dañ koy ñaane rawatina kilifa jigéen yi ndax jigéen dañ koy ñaane ginnaaw dañ koy ñaan nag bu bëggante kenn baax na kilifaam yëg ko boobu bu kenoon bu keneen ñëwoon di ko ñaan su mu xamal ko ne am na ko ci wax buñ bëggante ba yëgal ko seeni kilifa it ba seeni kilifa bàyyi ci xel waruñoo nag di am lu ñuy dox di wet di ko dox waruñoo am lu wet di ko dox góor gi mën na seet ci jigéen ji ci këri kilifaam toog ak moom ci kanami kilifaam muy waxtaan ak ci waxtaan ak jigéen ji it mën na seeti góor gi ci kanami kilifaam moom itam ngir mën a xamante ñoom bala ñu àgg ci di sottal seen mébét du seen xamante ñoom waaye xaman ñu xamanteeg kilifa bu dee jigéen ñi fam jëm ëllëg bu dee góor gi itam ñoom nar a ëllëg ñi seeni goro daal ñee doon seeni goro ëllëg mën nañ di fekkente ngir mën a xamanteeg ñoom waaye duñu wéet ñoom nag di di dox dara wala ñuy wax dara wala ñuy def dara asalaamaaleykum sëñ Xaban bu dee laaj bi laaj ndax nit sañ naa diw kawaru sikki di ci diw lu koy ñuulal ak di ko rafetal ak di ko guddal bu dee lu koy rafetal ak ko guddal moom sañ na ko kawaru sikki ma kawaru bopp yëpp mën nañ ko cee def lu koy ñuulal nag bu fekkee àggagut fi kawaram di baaxoo bi jaawe man na ko waaye bu àggee fi kawram bi baaxoo bi jaawe nag sañu ko sañu ko ndax loolu day xaw a nuru soppi bindu yàlla te soppi bindu yàlla moom dañ koy bañ kon ki àgg foofu baaxoon nañ fa bi jaawe kooku sañu te soppi kawaram di ko ñuulal man na ko soppi nag beneen couleur lu mel fuddan fuddan ndax li tax ñu may fuddante te mayuñ ñuulal mooy mu ñuulal ki ko def moom day mel ne koy naxaate ku ko seen day jàpp ne wala moom sax bëgg wan nit ñi ne du mag du mag kon day naxaate moom ki ko fuddal nag ku ko seen dana xam ne lee du kawarub kawarub dëgg-dëggam dana xam ne kawarub dëgg-dëggam du lee kon foofu naxaate ji mën na faa feeñ ku ko seen dana xam ne lii du kawar bu dëgg-dëggam ki ñuulal nag ku ko sendeej mel na lii mooy kawarug dëgg-dëggam kon daa soppi euh, fi mu toll nii ni ko yàlla binde fii mu toll mooy àgg na ci fi ñuy baaxal bi jaawe yàlla bi jaawal ko moom mu bëgg a soppi loolu ñuulal ko bëgg ko seen jàpp ne kawar loolu mooy kawaram ku ko def beneen couleur nag ku ko seen dana xam ne loolu du kawaram ok mbokk mi day laaj ndax bénéfice bi nit di am cim njaay ndax bu baree genn bare gi day araam ndax dana am fu muy àgg ñu ne dafa araam mu joxe misaal ci ku jënde woon dara jaaye ko lu ñaar telem ko jënde woon loolu mooy mu am ci bénéfice cent pour cent jënde fukk jaaye ñaar fukk Euh, lii cosaan day mooy bénéfice amuñ fuñ ko yemale li ci am solo rek mooy ki jaay ak kii jënd déggoo nañ dëppoo nañ te nax amu ci nax amu ci mooy kii jaay amul lu mu wax ki jënd lu dul dëgg ci biir njaay mi néew ko nangam laa ko jënde ba tax kii jënd euh, attan ko ca fay lam ko ca fay te fekk jëndewu ko loola loola bu ci amee moom moo xam am na ci bénéfice bu bari moo xam am ci bu bari dafa araam naxe ci biirum jaay dafa araam waaye bu fekkee naxe amu ci lim ko jaay nam mel la ko ko xamale kiy jënd moo xool bam doy ko mu jënd booba bénéfice bu nu mën di toll itam du araam du araam teewul nag bëgg nañ kuy jaay nag muy wooye falal nit ñi muy mu fexe ba ame ci dara rek lu yem ba wooye falal nit ñi lool lu baax la waaye bu amee bénéfice bu bari itam nag lu tax mu araam ginnaaw naxe amu ci eh, waxu ca lu amut wane wanewu ca lu ca nekkut booba bu bénéfice mën di toll itam araam laaj bii de laaj moom naafila yi naafila ñuy def ginnaaw timis ak naafila gu ñuy def ginnaaw gee ñaata rakka doon bu dee ginnaaw timis mën naa doon ñaar mën naa doon ñeent mën naa doon juróom benn loolu lañ ci xam lu ci nit def rek baax na ku timis bu nekk ba noppi mën na caa toftal ñaari rakka muy naafila wala ñeenti rakka muy naafila wala juróom benn rakka muy naafila bu dee ku julli liggéey ba noppi it moom tënkuñ tënkuñ ko waaye yonent bi daal lam daan gën a def moom mooy fukki rakka ak ñett lépp dugg ci nag lépp dugg ci mooy li li nga tuddee safa witar da cee dugg safa moom xam naa nit ñee koy wax waaye witr daal moo am ndax safa moom li li nit ki julli lépp lu jiitu witr rek safa la ndax safa ci arab ci safan mooy lu toolut lu tool lu tool nag la ñuy tëjee julli guddi juli guddi mooy julli naafila yi nit di julli ginnaaw gee bu jullee gee ba noppi ba fajar di jot julli naafila yi fi def yëpp la ñuy tuddee Eh, julli guddi yooyu nag nag witar moo koy tëj mooy julli gu tóor lay doon buñ boole lépp nag te bi li ëpp bu boole loolu lépp fukk fukki rakk ak ñett la daan doon kon koo xam ne safa witar moom da ko jàppe ñetti rakk yi mi mujj julli kon day def fukk ba nag def yooyu muy fukk ak ñett bu defee leneen tam nag baax na waaye yonent moom lii la gënoon di def fukki rakk ñett lépp dugg ci waaw ah, laaj bii moom dane daa bëgg di naafila kaamil bi te mokkalut alquran ndax dana mën jël kaamil di ko ubbi ci xool jëru ko nag jëru ko loolu danañ ko maye waaye ci naafila mbooloo lañ koy maye naafila yi am koor weeru koor bi ñu dajaloo ci jàkka am ku leen di jiite bu dee kii jiite ma ko alxuraan mën nañ koo may muy xool lu jàng ca kaw waaye kuy naafilaal boppam nag loolu jëru ko ci moom jàng alxuraan mbirum boppam la maanaam jàng kaamil ab kaamil tàmbali ko ba mu jeex mbirum boppam la bu dee weeru koor bi nag dañuy bëgg boolewaale ci nit ñi nit ñi dañ bëgg di leen dégtalaale kaamil bi yëpp moo tax ñuy taamu kuy naafila tàmbuli kaamil bi bam jeex ngir dég ñu dégtalaale ko nit ñi nit ñi waaye ki nga xam day naafilaal boppam rek loolu jëru ko ci moom mën naa naafilaal la mokkal rek bu bëccëgee nag wala waxtu bu ko mu jël kaamilam jàng mën na bés bu ne waxtu wam tànn ci bëccëg bi jël ci kaawalam ubbi jàng lam bëgg a jàng boo lëgee mu mu sof ca boo lëgee mu sof ca boo lëgee sof ca mu jeex mu tàmbaliwaat buy naafila nag mu naafila la mokkal rek jërut mu koy xool mu xool gi daal ci naafila ak mbooloo ku jiite mbooloo ngir bëgg a dégtal nit ñi alxuraan te moom mokkalu ko kooka la ñuy may mu def loola Euh, mbokk mi lay laaj di wax ne góor gu am soxna fi mu dëkk jóge fi dem feneen takk fa soxna seneen te ñi mu dëkkal yëguñ ko mu nekk foofa ba wéradi wéradi goo xam ne ca la faatoo ci biir gi nag ci la fee mu dëkkoon soxnaam soxnaam saak ña ay bokkam ya daal ci lañ door a xamee ne amoon na soxna fii mu ñëwoon te amoon na moom doom mu ndax bi mu kon doom jooju war naa doon wala déet soxna ku ko takk ku ko yëg ku ko yëgut soxnaam la li bañ kenn bañ koo yëg lañuy bañ waaye am ñu ko yëgut moom ñu mën doon du tee sëy bu baax ku takk soxna nëbbu ko way juróom wala nëbbu ko soxnaam wala nëbbu ko doomam wala nëbbu ko waa dëkkam waaye teewut moom am nañu ko seere fi mu ko doon takki moom am nañu ko seere ba xam ne ab sey dox na seen diggante sëy boobee moom sëy bañ siiwal ca ay biir bokkam ñooyam rek ca juddoo moom la juddoo ca sëy bee siiwal ci ay yépp ñooyam moo xam yëg génn àddina moo xam sax ginnaaw bi mu génn àddina lañ ko yëg waaye am nañ ay firnde mais bu doon ne sax yëguñ ci dara te loolu danay am léeg-léeg nit dana génn àddina ba soxna soxna yiñ ko xameeloon ci fi mu di muuru am keneen ku jóge feneen ñëw ne sama borom kër la woon bu firnde dañ ko jàpp soxnaam dañ koy soxnaam lay doon moom itam day doon doom yi mu am ci mamoon ak moom itam day dañuy doon day day da koy muuru itam mooy day jàpp idda itam loolu ñi dañ koy te takku suuf takku suuf mook takku kaw rek ñooyam xam takku kaw mooy leen sax waaye ñooyam takk gi ñuy bañ rek mooy guñ guñ siiwalut nga xam ne yëgaluñ ko ñi kenn diggante góor gi ak jigéen ji rek la wala kenn rek lañ ko yëgal lu mel ne baay ji maye rek moo ko moo ko yëg ak doom ji maye ak kim ko may keneen yëgu ko loolu lañ bañ waaye bo amee ñu ko yëg ñeneen ñu ko ñu mën doon it du tee sëy baax na moom ok léegi nag la ca des moom boppam la moo ay bokkam waaye du du mbirum sëy bi waaye problème boppam la moo ko ak bokkam lu taxoon mu leen koy na bëgg buñ ko yëgee lu ko fekk ci coow ci meroo ci yëpp mbirum boppam la mu ngi lijjanti yi Euh, bu faatoom nga xam ne kon amul lu ñuy lijjanteet waaye sëy ba moom doonu ci dara laaj bi ci mujj day wax ne ku fàtte julli tusbaar ba dem ba timis di bëgg a jot julleegutoon tàkkusaan muy mu julli tàkkusaan booba mu julli takkusaan wala muy bëgg a julli takkusaan fàttaliku ne julliwutoon tusbaar nan lay def ndax day fay tusbaar ji door julli takkusaan wala julli takkusaan door fay tusbaar loolu sax du fay waaye day julli tusbaar kon rek du fay ndax waxtu wi génnagut waxtu tusbaar génnagut waxtu waxtu tusbaar yi génnagut waxtu wa ca génn nag génn wañ ca taamu waaye waxtu bi ñu tuddee waxtu ki ñàkk pexe daanaka wala waxtu uh, lu ñu wax daruura daal génn gut jeexagut kon fayut day julli rek kon day julli tusbaar bu noppee julli takkusaan bu fekkoon ne julli woon takkusaan bu noppi sax fàttaliku ko day julliwaat tusbaar julliwaat takkusaan ndax ñoom ñaari julli dañoo bokk waxtu kon yu jiitu daa war a jiitu wa ca topp ci fàtte won ba julli gi war a mujj itam bu noppee day julliwaat ki war a jiitu baamuwaat gim julli woon tam war a mujj jërë ngeen def